nekk ak njëriñ maanaam bokk ci économie Sénégal di ci cotiser incha loolu dinaa ci dinaa ci ñëwaat en attendant nga nga nga nekkoon ku ku engagé woon ci ci ci xeex bi ngir eh, ki nga xamante ne ni moom moo fi nekkoon président mu jóge fi di son excellence le président Macky Sall jóge na fi léegi am na gën a dund gu muy dund ci yeneen ci ay sphère di di ko di ko doxal loo xam ni daanaka daal ñenn ñi la wax nañu ne euh, nongal Macron la ci gàttal. Euh, yow ban jàngat ngay am ci demam gi ndaxte ci ñi doon xeex pour mu dem nga bokk ak itam dundam gu bees gi. no man xeexu moom pour mu dem kese dama doon xeex pour mu daanu benn système bi ànd ak moom daanu mais tamit après ñu am l'occasion pour la première fois dans l'histoire politique sénégalaise ou bien pour la première fois dans l'histoire de la nation sénégalaise ñu am un président corrigé un président savonné maanaam kilifa njiitum réew boo xam dañ koy woo ci yoon. Hmm. parce que Macky Sall daf ñoo offrir comme je dis une batterie de haute trahison te loolu président Bassirou Diomaye xam na ko premier ministre Ousmane Sonko xam ne ko képp ku am lecture ci politique sénégalaise xam nga de Macky Sall lu mu waroo ak askan bi waroo ko même ci ba muy prêter serment bëri na ci jikko yi ci anamu yorin yorinu dëkk bi ci anamu tëj ku la neex bàyyi ku la neex toroxal ku la neex loolu yëpp dafa am te loolu yëpp c'est des hautes trahisons waxatuma nag ci loo xam te maanaam muy richesse su dëkk bi négociation contrat muy pétrole beeg muy gaz bi et tout te gis nañ lu fi am rien que mu boole son petit frère ci négocia ci négociation pétrole loolu c'est de la haute trahison waxatuma nag li ci topp. Hmm. donc ça waroon a toppee haute trahison. haute trahison mais pas haute trahison sans S mais des hautes des hautes trahisons bokk avec S. trahison yu bëri quoi. bëri te loolu je pense que sénégalais yi xam nañ ko maintenant bon moom il se pense voilà libre dem na jël beneen liggéey euh, boo xam ne France moo ko dénk et tout mais bon loolu peut-être porte de sortie am la mais li wóor ba wóor mooy man si ñu gëm ne Macky dañ ko doon topp laa gëm man je crois à une Afrique où les présidents son jugés pour que maanaam loolooy changer Afrique. Hmm. président bu wàcc boo deful woon lu doon yoon ñu jugé la. bien sûr ministre tam bu wàcc directeur tam bu wàcc c' est pas que le président même si que le président c' est le responsable de tout mais tamit ba ci ministre bi ba ci directeur bi parce que gis nga dëkk tant que justice mënul nit ku am daraja nit ku am tour nit ku am post dëkk boobu du mës am justice te Sénégal ñun loolu mooy suñu handicap. waaye hmm. soo demee Europe ak ay États-Unis dëkk yu sérieux yi. ni nga gën a siiwee ni nga gën a yore alal nga tooñ nga tooñ yoon noonu lay gën a dalee sa kaw. waaw mm-hmm. soo demee France bi nii mën nga nekk jeune suñ la jàppee benn première fois ci mbiru drogue wala leneen dañ lay may chance nga génnaat dem di xaar nga récidiver maanaam nga defaat ko mais bu dee ko borom tur nga une fois nga koy def tu es emprisonné parce que foofu justice day profiter ci sa tour at si sa siiwaay pour wane ne que moom mi ngi def yoonam. te yoon nag président moom moomu ko xam nga damay ñaan président bassiru Diomaye ak pré premier ministre Ousmane Sonko réussir li ñu dig sénégalais mooy cette reddition des comptes benn parce que suñ ko raté ils auront tout raté. Ablaye bu mu ñëwee Ablaye bu mu ñëwee en 2000 loolu la raté mu xeeb ko. du ma toppee ndax su ma toppee dañuy wax damay defante et tout fekk yow kenn waxu la nga def yow dañ la wax rek ne la bàyyil yoon def liggéeyam Macky Sall bu mu ñëwee tamit pareil Karim Wade kese les si jàpp parce que dafa gëm ne que Karim Wade mën na ko lor politiquement parce que am na xaalis am na alal mu bañoon am benn opposition de milliardaire en face de lui mu jàpp cundum Karim te loolu yëpp li ko gën a waral mooy maanaam bañ a gëm sa yoonu dëkk bañ a bàyyi yoonu dëkk def yoonam président yi fi jaar yëpp magistrat yi ñu fi fekk ah ñu seen formation jàngaluñ leen kon nañu war a bàyyi ñu liggéey seen liggéey. mais président Bassirou Diomaye Faye loolu la woote reddition des comptes d'ailleurs euh, rapport yaa ngi génne rek. mais bon rapport yi ñu ngi génn mais man gëm naa ne tamit d'une part que convocation arrestation mise en instruction mën na jiitu rapport bu génn loolu lu ma gëm la parce que dañoo baaxoo ne. mais ana présomption d'innocence. waaw mooy li ma la wax. xam nga dama la wax convocation convocation ça veut pas dire arrestation mise en instruction ça veut dire aviation et réduction des comptes ne pas dire aussi emprisonnement même si que rapport yi pare na am na ñoo xam ne seen suite logique c' est l' emprisonnement direct. ah moo tax waaw mais nag dama lay xaymaal ne ñetti yooyu ñetti possibilités yi daal tegal. mën na nekk ko mën na nekk parce que fii yàgg nañ jàpp nit ci lu njëkk ñëpp laaj lu mu def ñi soo ko génne lu mu def logique bi loolu la. Mhm. jàpp la. ba pare askan bi soo ko xam loo def. kon da nga jàpp ne képp ku ñu tudd ci rapport yi mooy dañ la war a woo convoqué la daal. bu dee jël nañ responsabilité siiwul rapport yi. bu dee jël nañ responsabilité rapport yi moom siiw na moom. xam nga expliqué la bu dee jël nañu responsabilité siiwul rapport yi. Mhm. bu dee jël nañ responsabilité fexe sénégalais yi xam kan ak kan jël lu mu war woon jël nañu am la même responsabilité. convoqué yoon def liggéeyam ba nga xam ne day egg jusqu'au ko parce que loolu lu ñu digg la. kon aussitôt bi rapport yi génne ñenn ñi moom waruñu woon fanaan seen kër kon en tout cas bis bu convocation jotee xam naa ñu bëri nekkuñ ci territoire Sénégal instant bi mooy ñi ñuy tudd ci rapport yi. ñu bëri am na ñoo xam ne. dañoo daw kon génnewuñu aéroport sax mais dañoo dem Gambie Mauritanie Guinée par la voie terrestre après jël avion si seen aéroport dem. loolu loolu daw lañ ko mën a jàppee kon. bien sûr que daw la. mais lu ñuy daw. ah kon ñoom dañoo wane ne dañoo def. ah loolu ñoom dañuy xaar rek man daal li may ñaan mooy nañu dem jusqu'au bout. ki ñu war a jëli ñu jëli la dëkk bi nga nekk bu dee dañ la bañ a indi tamit nga dàq ambassadeur dëkk boobu noonu ba mu jël décision nag Sénégal instant yi toll na foo xam ne fu mu nekk nii dëkk yëpp ñoo ko soxla. Mhm. waaw donc maanaam koo ci lijjanti ci diplomatie dina la indil koo soxla man loolu laa gëm. d'accord parce que dëkk sentiment dox doxalu ko. il faut être nag sentiment doxalu ko émotion doxalu ko. Mhm. ñaan njekk tamit doxalul dëkk. parce que Sénégal su tardé ba tardé li ci ëpp ñaan njëkk moo ko tardé. Mhm. waaw. ñaan njëkk mooy ay lobby nekk fi tant religieux tant communautaire tant affairiste di protégé ay nit yu def ay jéeya di protégé ay nit yu lor ay famille lor ay ville lor ay village nit day ñëw sàcc ay milliards ñu baal ko nit day ñëw sàcc dëwlin ginaar wala billet 1000 francs ñu tëj ko te pourtant milliards yi mu sàcc moom ay milliers de sénégalais ñoo ci mënoon dund forage lay mën defar école mën a defar dispensaire ci ay zones yoo xam ne zone reculée la loolu am Sénégal. parce que fi mu jeex ci loolu ngay wax noonu ku mel ni Babacar Diop mooy l'actuel maire de Thiès ni mu waxee xaw naa nduru li ngay wax ni parce que euh, laaj bi njëkk mooy le fait mu bàyyi ba Bassirou Diomaye Faye ñëw Thiès Mbour 4 affaire yi dakkal ko mu soog a ñëw di wax donc mais ci biir wax ji njortu nañu ne li ñu dégg mooy daf ci am ñoo xam te ay kilifa lañu mu ne su lu woon siiwal. wala mu ne solo na leen sàng sutura donc day rejoindre li nga wax noonu am de da koy rejoindre mais man je trouve que Babacar Diop sama grand frère la même si que on s'est parlé très rarement mais ku ma jox respect la et estime quoi mais pour man sortie boobu noonu c'était irresponsable de sa part mmh, comment parce que autorité la il est le maire d'une grande ville au Sénégal qui s'appelle Thiès yes. donc euh, parfois nga bañ a expliquer wu moo gën ngay expliquer wu pour wax ne damay baal wala damay seppi soo demee ba nangoo ne Idrissa am na lii diw am na lii diw am na lii génneel ñëpp génn. Mhm. oui c'est ça mooy li rek république sénégalaise à cinquante pour cent ñaan njekk moo ko yàq te loolu mënul continuer il faut que borom tur yi il faut que borom daraja yi ñi nga xam ne dañoo nekkee loo xam du yoon ci dëkk bi ñu teg leen ci yoon justice suñ koy wax ku néew dooleew taxul. mais ñu am doole ñoo tax loolu justice. maintenant nag suñu fexee ba yóbbu population bi ci benn fayanto parce que gis nga tension bi amoon ci génne fi Macky Sall ba tey mi ngi fi ah soo xoolee ñi fi toog nii ñi ngi mel ni ku fi def un an te pourtant un mois et quelques jours lañu fi defagum. parce que la tension est toujours là tent est toujours là la pression est toujours là. donc il faut ñu xool nu ñu dégonfler cette pression sociale. parce que pression sociale bu lenn kese moo ko waral en dehors de la pauvreté c'est l'injustice te loolu il faut mu dakk te lu koy dakkal lenn kese la. lan la. teg kilifa yi nga xam ne dañoo def lu ñu warul def ñu teg leen daan lu ñu war a daan ñu ci war a rembourser rembourser ñu ci war a baalu baalu ñu ci war a tëdd tëdd c'est pas compliqué man moo tax sama programme dama waxoon ne il faut faire il faut créer un ministère en dehors du ministère de la justice il faut génn loxo premier ministre da génn. le ministre à lui ak secteur mu gérer ko parce que fii si tu répares les injustices automatiquement en même temps tu fais la reddition des comptes. voilà loolu kese euh, euh, lan mooy sa position par rapport ak coowal kon suuf si ñuy dégg surtout arrêté chantier yi ca ca VD ca plutôt euh, nu mu tudd sax littoral bi mbuurkaat itam lan mooy sa position par rapport ak. coowal suuf si si lenn kese moo ko waral mooy l'État n'a jamais pris.